pas un choix de cœur mais le choix de la raison. kon loolu moom ah, moo tax sama laaj bi. ci Boun Abdallah Dionne moom est-ce <laughs> de cœur ba nuy wax est-ce que du moom. ah mën na koo jege de moom. Mhm. waaw mën na koo jege lool sax ndax ñoom ñaar danoo yàgg. seen compagnonnage yàgg na lool wax dëgg yàlla te rapport de confiance am na seen diggante ndax ñoom ñaar seen compagnonnage yëpp doo si mës a dégg dualité toujours rek da ngay dégg Macky jiitu Boun Mahammed Boun Abdallah Dionne topp. Mhm. mais amul benn dara loo xamante ne mën nga cee am suspicion ba bi mu nekkee aux affaires Mohamed Boun Abdallah Dionne affiché wul benn ambition politique bi ñu ko teggee aussi en 2019 dafa dem rangé wu déggoo ko ci dara deful rassemblement wootewul ruubewul deful dara bi mu fi génnee sax du point de vue médiatique c'était en 2021 mars 2021 bi événement yi tàngee lool mu génn mel ni benn sapeur bu ñëwoon à la rescousse de du gouvernement de Macky Sall am yenn question yu mu yu ay réponses yu mu apporté yooyu noonu yëpp donc loolu lañ mën a garder ci moom comme souvenir mais nag ba muy bind lettre boobu noonu ci biir euh, période bi ñu defee candidature yi appel à candidature yi ah xëy na dafa jàppoon ne moom mooy doon le candidat moo tax mu ne bés bu ñu choisiré le candidat na ñëpp tënku ci choix wu président Macky Sall amaana nag changement moo am si diggante bi tey jii nag sa candidature déclarée am na leneen lu ci topp. muy un mm. autre signal mooy sa photo bi mu publier avec Aly Ngouille Ndiaye. Mm. benn proximité digganteem mm. ak Aly Ngouille Ndiaye loolu nag bettewul parce que ñoom ñi nga xam ne ñoo soxla woon candidature benno bi dañoo defoon benn pacte muy moom muy Aly Ngouille muy euh, kii nii nu mu tuddati Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Diouf Sarr dañu ne woon. bés bu choix amee su fekkee ne kenn ci ñoom choisiruñ la mais ñu choisir Mohamed Boun Abdallah Dionne ñoom ñëpp dinañ ci tënku donc loolu ça cela sous-entendait que bu bu ñu choisir amadu Ba ñoom du ñu dem di soutenir amadu Ba mais bu ñu soiree choisir Mohamed Boun Abdallah Dionne dinañu dem ci ginnaawam parce que jàppoon nañ ne bu dee authenticité wala benn patri paternité bi moom bokk na si ñu ko mën a revendiquer ci biir APR muy benn symbole. ci diggante bi nag soit Amadou Ba ñëw na soit Amadou Ba nag xam naa ne li ko gën a motiver mën na bañ a jóge ci APR mais ci famille Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. ak aussi les des bailleurs ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne euh, xam nga Sénégal moom boo duggee si yenn kii yi rek ñuy duggate ci beneen débat souveraineté yooyu noonu alors que yooyu dans la réalité des faits malheureusement mooy li fiy dox ñu bëgg ko ñu bañ ko léegi nag yooyu yëpp xëy na moo greffé wu ci choix wu Amadou Ba mais tey sa déclaration de candidature euh, man euh, surprendre na ma parce que foogoon nañu ne moom du kuy euh, jël beneen yoon waaw genre défiyeegul sax mm-hmm. bun jon du nekkul kuy mës a défier Macky mm-hmm. Sall mais xëy na peut-être mu aw beneen yoon gannaaw yoon bi nga xam ne président Macky Sall rëdd na ko mm-hmm. mais dans l'interview du président euh, sur France 24 et RFI oui. am na lu mu wax loo xam ne man jàpp naa ne loolu mooy objectif final bi nee na toutes ces candidatures déclarées jusqu'au dépôt mën nañoo rentrer dans les rangs. Hmm. ma gëm ne xëy na ci loolu lay liggéey bu ñu bu ñibbisee. Hmm. képp ko taxaw rek ni candidat nga dina fexe ba nga ranger même ci audience yi ñi mu recevoir yépp c'est pour les convaincre de suivre son choix mais c'est pas pour di leen di motiver pour ñuy gën a dem ndax xam na ne xëy na ñoom am nañu ay frustration amuñu explication ci choix am. vis-à-vis de Amadou Ba mais bëgg na ñoom ñëpp ñu rentrer dans les rangs et xam naa ne bu ñëwaatee ci loolu lay liggéey bokk na ci observateurs yi ñu jàpp ne lii c'est une guerre entre euh, apériste et benn dans le camp de Benno moo tax ñi siy sonn sax di ci suppité ñooñu dafa mel ni amuñu lu leen doy parce que lii ñoom seen pootu biir la mu génn ci biti nag mais nit ñi dafa mel ni ñoo leen ko gën a aakimoo ba fàtte seen i problème mu bopp surtout pour les opposants mais lii c'est un problème à l'interne qui va se gérer à l'interne et que solution à l'interne man jàpp naa ne dina am xëy na instant yi dañu toll ci ay moment surenchère politique parce que tam positionnement lañ lañ lay laaj dañu jëm ci 2024 ku ci nekk si ñoom jàpp nga ne Amadou Ba mun na ñëw ak ñeneen wala mu ñëw liggéey ak ñeneen bu fekkee ne ñëw na au pouvoir ku ci nekk nag di ko wan ne ko man lii laa pesé lii laa war a mën a am bés boo yoree it bii cër nga ma mën a jox man jàpp naa ne moo waral yenn déclaration de candidature yooyu mais au final au final ñoom ñëpp ils peuvent se retrouver il faut pas qu'on dans ce piège pour pour di xalaat na ñoom dañoo séparé wu et que am na rupture totale rupture totale amul de benn départ la rek ñu bëri demandoo mais ci ligne d'arrivée bi ils peuvent se retrouver il faut que ñu focus ñun ñëpp ci loolu mais ñu bañ ñu divertir que ne ñii moom c'est à rupture ñii moom c'est fini quoi affaire bi c'est plus profond c'est pas profond c'est des positionnements justes rek ay mécontentement de départ wala ligne waaw surtout am bu ñu paree parrainage yi d' abord muy première étape mais aussi bu ñu demee bay déposer candidature yi muy deuxième étape mhm. ils peuvent se retrouver bien avant parce que ñoom ñëpp ñi déclaré wu ci candidature yi maanaam ci biir majorité présidentielle sëriñ sawaay <laughs> ah, la de gisuloo de hmm? gisuloo tu vois parce que ñooñu ñooñu ñëpp di déclaré seen candidature ci biir majorité bi ñoom bu ñu leen jàppalewul duñ am sax pare parrainage citoyen duñ ko am. Mm-hmm. ndax amuñu mbooloo bi amuñu dayo bi ku ci nekk rek benn zone rek nga ko mën a jàppal ne lii fii la mënee mais munoo jàpp ne Sénégal bi yëpp mën na fa mënee ak ci diaspora bi. Mm-hmm. donc muy premier première faiblesse bu ñuy am ñoom ñëpp te ñoom ñëpp xam nañ ko ils sont conscients de cela mais l'autre chose mooy parrainage des élus. loolu il faudra que ñu marchander il faudra que ñu discuter avec les députés de Benno te les députés de Benno est-ce que sañ nañoo défier l'autorité très bien euh, de de Macky Sall bi nga mm. xam ne moo jiite Benno ak les conseillers et élus de Benno yooy yëpp ay kii la ci ñoom ay ay ay frein la si ñoom moo tax ma jàpp ne ay surenchère yu ñuy def la rek mais ñoom dans le fond ku ci wéet xam nga ndax yow di nga dem parrainage oui ou non et que sa candidature dina am finalité oui ou non ñoom am nañ ci lu leen leer donc faut qu'on qu'on extériorise alors que dans le fond ce ne sont que quelques problèmes. waaw euh, merci beaucoup xam nga man question bi keroog bi ñu ciy mujj def naa amoon naa ci benn position. Mm. et jusqu'à preuve du contraire. li ci bees mooy euh, la déclaration. de candidature de Boun Dionne. waaw parce que dama waxoon ci sama ultime conviction. réeroo wuñ ba tey. réeroo wuñ de. waaw te mën nañ retrouver wu. Mm. waat après. loolu nag l'histoire nous dira incha allahu rabbi xam nga le président de la république li Abdou Aziz Diop waxoon lu mat a bàyyi xel la mooy nitu pexe la te dafa bëri pexe te xam na ay pexe mi tam nu mu koy teg en tout cas li ci solo mooy le président Macky Sall bépp jéego bu mu avancé ci politique jéego la boo xamante ni bu koy ba mu koy togg togg na ko lu yàgg ba mu ñor xom mu door ko yàgg mm-hmm. xam nga damay bañ nit ñi tombé ci piège am par rapport ak discours yi nga xamante ni moom lay amal le président Macky Sall bari na lu muy wax te en réalité du loolu lay jëfee mais dafay bëgg a conduire l'opinion ci benn situation boo xamante ni bokkul ak sax en réalité moom fa mu jëm man jàpp naa ni réerewuñ te jàpp naa ni aussi Boun Abdallah jonn du taxaw taxawaayu jàmmaarloog ak candidat bi nga xamante ni moom la Macky Sall Macky Sall tàmm le président Boun Abdallah Dionne daf fi amoon lu fi waxta lu mu fi waxoon te loolu tamit dafa mat a bàyyi xel moom dafa mës a prôné ni bàyyi faalu Macky Sall la te am na texte boo xamante ni yàggul ba mu ko bindee di wax ni moom pare na pour accompagner président Macky Sall ci choix wam léegi tey bu ñu ñëwee mu livré ñu ni candidat la waaye waaye ne nit ñi xalaat nag xool ndax candidature bii lan moo ko motiver si ginnaaw parce que Baye Fall moom en réalité ñun ni ñu ko jàppee ci suñu société ak ni mu ko prôné waxee noonu mooy topp ci ndigal li léegi nag lu tax nag tey mu créer yoonu boppam loolu c'est des questionnements yoo xamante ni donc na ko Sénégalais bàyyi xel xam nga dafa dañoo jógee ci élection locale. le président Macky Sall toog bureau ne nommé na ay maire jàppale leen ñii ba menacé sax ñi nga xamante ni dañuy créer ay list parallèle mais finalement fan lañ mujj. moo taxaw fii biir palais de la république ne liste yi maa ko créé woon <laughs> loolu la mujjee wax finalement liste yëpp yu si bëree bëri sax man maa ko kii woon pour ñu dem. joxe exemple bu léegi nag élection yi ñu jëm il faut que nit ñi am conscience ni le président Macky Sall du jël risque yi di dem ak benn candidat si élection présidentielle c'est très risqué pour coalition Benno Bokk Yaakaar ñu am benn candidat.